internationale. abonné leen ci suñu youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 30 novembre 2022 d'abord l'actualité nationale. Le coordonnateur d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, félicite l'équipe nationale mais rappelle le sort journaliste Pape Alé prière fervente et soutien indéfectible aux Lions du Sénégal pour une qualification au deuxième tour de la Coupe du Monde 2022. Mais l'espoir ne doit pas être l'opium qui nous fait oublier que le journaliste d'application Papa Lénian et de nombreux activistes croupissent dans les prisons sénégalaises pour avoir euh, le président Macky Sall ou divulgué des informations d'intérêt pour le public dans un État démocratique, a rappelé Seydi Gassama. Avec la victoire des Lions ce mardi, synonyme de leur qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde, les scènes de l'Est ont pris plusieurs rues de Dakar. Malheureusement, à Kermassa, un drame s'est produit dans la foule qui exultait. Une charrette a mortellement heurté un enfant. Afrique, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat terroriste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam qui avait fait 19 morts lors des réceptions européennes en 2016 s'ouvre ce mercredi à Abidjan. À l'époque, trois assaillants avaient remonté la place de Grand-Bassam, très fréquentée par des étrangers, pris d'assaut plusieurs hôtels et restaurants avant de tirer à Kalashnikov sur des clients.